di leen siyaare mbokk yi nga xam ne ñoo janoog ñun fii ci tuuba Diamaguène ci kër Cheikh Mouhamadoul Bachir euh, Alilo Ali Aram ngi leen nuyu baax tey jiitu ci nuyoo bi bi ki nga xam ne mooy Serigne Mountakha Mbacké mi nga xam ne moo toog toogaay di ko ñaan suñu borom yàlla yàggal ko te wéral ko ba mu ci toolu Serigne bi. Euh, noonu nañ ko waxee nag ñu ngi fii ci Touba Diamaguène ci kër Serigne Bassirou Lo Ali Aram. Eh, ci waajtaayu bis bi nga xam ne moom lay taxu at mu jot eh, fii ci eh, tuubaay jàmm Diamaguène ñu ngi ni toog ak moom nag waaye ñu toog ak lenn ci njaboot gi ñu fas yéene fee def waxtaan wu am solo bu nga xam ne dana jëm ci soññee waaye dana jëmatim ci waajtaayu bis bi moo waral ginnaaw bi ñu toogee sëriñ bi nuyu ko siyaar ko di ko ñaanal suñu borom yàlla yàggal ko te wéral ko ba mu yeggalee yéenam ci tollu sëriñ bi ñu ngi toogatam ki xam ne mooy sëriñ Moustapha mi nga xam ne kenn la moom itam ci njaboot gi moom Serigne Cheikh Lo jàmm gën waaye ñi nga xam ne ñoom lañ war a seqal wi nag mooy Serigne Bassirou Lo daayira incha allah ak Serigne Cheikh loo moom Serigne Bassirou Lo ak euh, Serigne Aliou Badara Lo bu noppee Serigne bi ñaanal ñu incha allah kon ginnaaw bi ñu leen nuyoo siyaar leen rek dañuy daal di dugg ci waxtaan wi ndax xam ngeen ni 6 euh, heures lañ waroon tàmbali waxtaan wi waaye jafe-jafe yoon wi tax ñu yéex a tàmbali ñu yéex a yegg si tàmbali waxtaan wi. kon nag euh, ginnaaw bi ñu leen rek ñu daal di jox kàddu ki nga xam ne mooy sëriñ Bassirou Lo daayira aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala man la nabiya baad seydina wa maulana muhammad wa ala wa sahbihi wa sallama tasliman mbokk julit mbokki taalibe ñi ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak santam te jiital ci nuyoo bi sëriñ Muntaxa Mbàkke alxalifatul aam di taifatul muridiya ñu koy ñaanal fan gudd lool waa ànd ak yaram di ñaanal it suñu jàmbaar ja sëriñ Sidi Muxtaar Mbàkke suñu borom yàlla na yeesal yërmaaneem ci kawam te yokk koy leer te taas ñu ci barkeem di nuyu tamit atub Daaru Xudoos bépp di jël nuyoo boobu di ko teg ci kanamu ci loxo suñu kilifa suñu jëwrin Cheikh Mahamad Bassirou Lo Aali Aram moom mi nga xamante ni moo fi toog toogaay sëriñ Aly Aram Lo ñu koy ñaanal fan wi lool loo wa ànd ak wér yaram suñ borom mën na ko yàlla na ko yàlla def comme niñ ko baaxoo defee rek buñ jiboo ci bisam bii nga xamante ni bisu ndimbal la bisu ziar la bisu dox mbokk la yenn ci ay njabootam di ay taalibeem muy daayira Taysiru Asir biñ xam ci sët ak sëtaatu sëriñ Alaram loo yëpp ñëw ci kanamam yeesal seenu njëbbal ci kanamu sëriñ bi yeesal suñu taalibe ci kanamu sëriñ bi euh, loolu daal mooy li nga xamante ni moo ëmb jotaay bii tey Euh, bu ko defee kon euh, ñi nga xamante ni ñoo fi war a jël kar euh, kàddu muy sëriñ Basirou Lo moom mi nga xamante ni moom moo jiite woon daayira bi te mag ñi jëloon ko tegoon ko ci loxoom te mu doxal ko ci doxaliin woo xamante ni doxalin wu mucc ayib la moom it sëriñ bi ñu ngi la koy ñaanal nga ñaanal ko suñ borom kàttanal ko ba fépp foo xamante mag ñi ñu ngi koy xalaat ci daayira bi mu egg la wala mu egg mu eggale fa daayira ba euh, ci gën ngaa rafetlu njort jàmbaar na ci lool euh, di guddi di bëccëg muy taw muy naaj Bachir du tayee ci dox ci lu jëmale ci daayira bi ci kanam kon mooy ki fi war a jël kàddu buñ ci jógee jox Serigne Cheikh moom Serigne Bachir Lo Ali Aram mu jël kàddu euh, balaa ñuy jox sax Serigne Cheikh Lo danañ jox kàddu Serigne Souhaïbou Lo mu wax ci turu sëriñ Moustapha Lo jàmm gën bu ko defee bu ñu ca jógee ci moom jox sëriñ Cheikh Lo bu fa jógee jox suñu jëwriñ sëriñ Ali Badara Lo bu ko ñu daal di jox euh, sëriñ bi mu daal di def ñu euh, daal ñuy soññiwaat ñaaxaan ñu ñu delluwaat ci liggéey ba kon ñu daal di jox rek kàddu gi sëriñ Basirou Lo moom mi nga xamante ni moom moo jiite woon daayira Taysiroul Assir ñu gën koo xam ci sët ak sëtaatu sëriñ Aada Aram Lo sëriñ Basirou Lo bisimilah. bismillahi rahmaani rahim alhamdulilah wasalaatu wasalaam ala ashrafil mursalin sayyidil awwalin wal axirin mbokk jullit yi mbokk taalibe fu waay manti nekk di dégg suñ kàddu di leen di ziar bu baax a baax di leen jox kenn ku ne seen wàccuwaay di ñaanal suñu xalifa sëriñ Muntaqa Mbàkke saa borom tabaaraka taala yàggal ko fi ba li mu bëgg a liggéeyal maam mu tedd yooyu saa borom sàmm ko aar ko noonu lañ koy ñaanale mbooleem njabootu Cheikh Ahmad Bamba gépp di ko ñaanal suñu sëriñ suñu lépp suñu waajur mu Cheikh Mouhamadul Bachir Lo alaram di ko ñaanal suñu borom tabaaraka taala yàggal ko fi lool ba yéene jëm am liggéeyal ko waajur mu tedd woowu mu sëriñ Alla Yaram Lo saa borom sàmm ko aar ko mu def ko ni mu ko bëggee mbokk yi ñu ngi leen dellu di ziar baax a baax yéen ñi nga xam ne yéen a ngi safoo seen rajo Lamp Fall ah maa ngi jéggulu seen rajo Touba Fall FM ñu ngi leen di ziar baax a baax di leen jox seen kenn ku ne seen wàccuwaay ak seen télévision Touba Touba Argentine ñu ngi leen di ziar bu baax a baax. ni ko noonu ni ko sëriñ waxee ñu ngi teew fii ci ëtt sëriñ Aale Aram Lo bii di daayira boo lëkkaloog daayira bu ñu naan Taysiir Ansir muy sët ak sëtaat sëriñ Aale Aram Lo te sëriñ Mouhamadul Bachir Lo Aale Aram tudde ñu ko njaboot gi sëriñ bi ñoo taxaw sa kanam di leen ziyaare di leen ci sàkku ci yow ñaan ndax yoon wa ñu tegoon de loo ñu ngi ci moo tax yoon wi tey jii ñu ànd kook suñu xalifa muy sëriñ Aline Badara ak sëriñ Moustapha Lo jàmmagan ak sëriñ Cheikh ñoom ñëpp ñu ngi ni toog ñu ñëw liggéey bi nga xam ne yàlla def na tegoon nañ ko suñu loxo ñu ñëw di ko jébbal sëy ji mbooloo mi nag ñu ngi lay ñaanal bu baax a baax di sàkku si yow nga ñaanal leen bu baax a baax ndaxte nit lañ ñoo xam ne nii nag ñu am pëseef lañ sànq ñu koy waxtaanee maag si biir man ak sëriñ Soy bu sëriñ Soy bu ne loolu mat naa biral ndax liggéey bi daan na dox waaye ren jii ku gis ni mu demee xam na ren jii la gën a dox macha allah ren jii amuñu benn jafe-jafe joo xam ni am nañ ko lépp dafa teel a jàpp ni loolu kenn ku ne da koo jël def ko sa yëf kenn ku ne da koo jàpp bu baax a baax jàpp ne lépp maa liñ lañ daan wax maa koy maa ko war a def mbooloo mi jafe na si ren jii sax lañ daan wax sax lañ daan sàkku si kenn ku ne nga joxe ko néew na ko joxe lu noonu. lañ daan wax ñu ñu si ëpp bu ñu doon fukk juróom-ñeent yëpp ñaaree lañ joxe te loolu tim ak jaayante te amul kenn koo xam ne bi mu koy jox gis nga si kanam wala dara loo xam ne nii euh, xaw ci xaw si sawar wala sawaru si wala dara kenn ku ne dasee am yéene joo xam ne nii yéeme na ka sëriñ bi ñu ngi sàkku si ñoom nga ñaan leen bu baax a baax muy soxna yi muy góor ñi mag ñi ak ndaw ñi ñëpp kenn ku ne la waroon. ak la nga jaayante woon ne dinaa ko def da nga koo def sëkk sëkk sëkk ba amul lenn lu ci manqué ëpp la ñu wax kay waaye amul lenn lu ci manqué kan ñoom it ñu ngi leen di sant bu baax a baax ci seen yéene ak seen taxawaay ji waaj bis boo xam ni muy bisub seenu maam bisub wàlliw muy Serigne Aly Aram loo muy kenn koo xam ne nii ci bokk si njaboot Serigne Touba bokk ci ñi liggéeyal Seexul Xadim ba Seexul Xadim gërëm ko ba Seexul Xadim gërëm ko démb rek ñu ngi koy wax ci rajo yi muy jëmm joo xam ne nii la ko may lépp la ko am la am lépp la ko may mooy dafa nangu kilifteef démb ñu ngi koy wax te Cheikh Mouhamadul Bachir Lo mi alaram yoon woowu ci la teg tànkam ba fii mu si tey jii ndax si jëmm la joo xam ne nii dafa nangul ay kilifaam muy Serigne Cheikh Lo Jàmbagan mi nga xam moo jëkk a wutu Serigne alaram Lo ak sëriñ Dame loo ak ba si moom mii ba yàlla def mu tey mu toog xilaafa gi ndax Serigne Bachir Lo alaram mii dañuy faral di wax kàddu gu am solo muy. na ngeen di toppee ku toppul kenn kenn du la topp moom la yàlla def mu loolu mu mu def ko ndëgëraayam toppaate ci la yàlla def ndax dañuy faral di wax ne sëriñ Aly Aram Lo kat ba muy génn àdduna ci saahir booba manees naa wax ne juróom at ci la toll ci saahir waaye koo xam ne sa waajur bi muy ci saahir yaa ngi toll ci juróom at tey dem ba nda euh, yan woowu tegu sa sa los wi kan kooku jëmm joo xam ni euh, dañ koy ñaanal baax a baax jëmm joo xam ni fa waajuram ma tegoon tànkam teg na fa tànkam muy lan nit la joo xam ne nii xam-xam rek ko ñor xam-xam rek moo ko ñor muy jàng ak jàngale ak tudd turu suñ ko tabaaraka taala te ñëpp xam nañ ne nja alxuraan sëriñ Ali Aram loo ci la nekkoon ci la daan yëngu ci la lii nga xam ne ci la ko sëriñ Touba gën a dooleel ndax ginnaaw sëriñ Touba moom mooy kum dooleel nga nga am doole. moo ko dooleel waaye avant Serigne Touba si la nekkoon ci alxuraan waaye Serigne Touba ñoo gën koo dooleelaat gën koo soññaat ci loolu mu nekkoon muy Serigne Serigne Bassir Lo aareer moom it moom it ñëwaat tegaat tànkam foofu ndax dañu faral di wax ne école bee nekk Daara Xuddoos ñu koy wax Sàqma moom jëmm la joo xam ne bokk na ña fa njëkk a jàngale majalis tànkam teg na ko fa tànkam kon Serigne bi ñu ngi koy ñaanal baax a baax saa borom gën koo sàmm bu baax a baax mel ni daal jotaay bi day lu ko waral muy daayira Taysiru Asir ñoo ñëwoon di siyaare xëy na Serigne Bada Serigne Halil Bada Lo bu ñëwee dina wax ci gën gën a ko yaatal waaye ñun amuñu lu def lu sant mbooloo mi nga xam ne yaa def ne guddeeg bëccëg ñi ngi ànd ak ñoom fu ñu leen woo ñu bàyyi yitte yëpp ñëw ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen ñaax ñu waaj suñ waaj suñ bis bi nga xam ni mooy samedi bii di ñëw ginnaaw suba ñu ngi ñu ñaan suwa borom tabaaraka taala ñu dugg si bismillahi rahmaani rahim gën si alhamdulillahi rabbil alamin saa borom defal ñu si ndam wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. macha allah amati na solo yëkkati na ko fa jëmale ko ci mbooloo mi nga xamante ni moom la jiite woon waaye ci jëmm ju da ji nga xamante ni moom lañ jàkkaarloo muy Cheikh Mahamadou Bassirou Lo man damay faral di wax rek ne di yonent bi la alayhi wa sallam waxoon ne man muslim man salimal muslimuuna min lisaanihi waa yadi julit dëgg moo julit bi nga xamante ni musal na ci moroom julitam ci ayu làmmiñam ak ay loxoom waaye bu dee ay waaye Cheikh ba Lo làmmiñam ak loxlaam ak loxoom ñëpp ko soxla ñëpp ko soxla ndax làmmiñ boo xamante ni tudd yàlla làmmiñ boo xamante ni woo nit ñi ci lu jëm ci lu jëmale nit ñi ci siraatul mustaqima woowu làmmiñ ñëpp ko soxla loxoom it ñu koy faral di waxee rek képp koo xamante ni am nga soxla yaakaar naa bu gisanteeg yow bu jëflanteeg yow nga fàtte sa soxla kon Cheikh Ban Basir Lo ñu koy delluwaat rek di ko ñaanal fan ko loolu waa nag wér gu yaram bu ko defee kon ñu daal di jox Serigne Souhaïbou Lo mu wax ci turu Serigne Moustapha Lo moom Serigne Cheikh Lo Diamaguène Serigne Souhaïbou bisimilah. bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi diin mbokk ñuy déglu ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziyaara di jiital ci nuyoo bi sëriñ basiiruloo Lo Alé Aram ak mbooleem suñ kilifa yi nga xam ne ñi toog suñ kanam leen ziyaar bu baax te jéggulu ci kàddu yi tey di ziar bu baax tamit ñi nga xam ne ñoom lañ bokkal daairatu taysirul asir tudd nañ ñëpp rek sant nañ ñëpp tey jéggul nañ ñëpp di barkeelu rek ci kàddu yi ndax barkeelu lañ ko mën a tudde ndax ñun ay ay taalibe lañ rek yoo xam ne lii ñuy wax tamit ci turu sëriñ Moustapha Lo jàmm gën sëriñ bi nanga xam ne lii lu dëgg la te ñu ngi koy seedaloo mbooloo mépp nag ak ñi ñuy déglu muy waxuñu baay li ñu wax mooy ab taalibe sëriñ bi ci turu sëriñ Moustapha Lo tey ci suba rek yàlla xam na ne ay 11 heures nangam maa ngi ci waxtaan ak moom lu jëm ci bis bii ci taxawaay bi ak jàpp giñ ci war a gën a jàpp tey ci ay 11 heures rek maa ngi ci waxtaan ak moom kon sëriñ bi nanga xam ne sëriñ Moustapha Lo mii mii lay fàttali ne doom la taalibe la mu jël ne bagaasam tey ñëw fii te it fii ak yéeyu woo ko amul droit dem te it noonu tamit la koy defee kon mi ngi lay fàttali ne moom daal ab taalibe rek lay doon te ñi nga xam ne moo leen yaa leen jaboote ñoom ñëpp nag mooy ñi nga xam ne ñoo aju ci kër Sëñ Aly Aram Lo yàlla def ko mu féetewoo ak ñoom lam la waxoon rek la lay waxaat ba léegi mooy mboole mépp sa mbooloo la loo ci wax loolu la ñuy def loo ci tere tamit loolu la ñuy bàyyi ba tax na démb tamit def nañ ci annonce bi di ko lancé waale tamit képp koo xam ne nii yaakaar nga sëriñ Aly Aram Lo duñ wax ko yaakaar sëñ Cheikh la jàmm naan ku yaakaar sëñ Aly Aram Lo rek bis bu suba na nga teel a xëy si samedi na nga teel a xëy si ba keroog sëñ bi yewee su ko defee kenn ku nekk sooy dem nga doog a mën a dem kon loolu sëñ baa ngi leen koy fàttali yéen taalibe yëpp euh, sëñ bi ñu daal liñ bëgg mooy nga ñaanal nga ñaanal ñu ñaanal mbooloo mi nga xam ne ñoo taxaw sa kanam nii lépp nag ngir liggéeyal yàlla ko yonentam rek lu loolu ndax adduna bi dafa tool foo xam ne rawatina naka jekk sax lépp lu waay def te yàlla taxul rek dangay perte man gëm-gëm googu laa am man lépp lu may def rek wala lépp lu ñuy def rek may ñaan nañ koy def te yàlla tax ndax lépp lu ñuy def lu yàlla taxul rek perte rek nga nga ciy jëlee kon nañu nañu nañu nañuy def te yàlla tax buñ def mukk ngir nit ndax nit kooku boo ko defee bu la ca santee day jeex donte ku du def ku nit dana sant dana def ngir nit waaye nag nañ ciy jiital pas-pas yi muy yàlla sëñ bi lii nag man maa ko def léegi ab seetlu bi may ñëw muy ci jumaa ji ñu jàkkaarloo léegi laa ci waxtaan ak benn waaye ma ne ko man dafa dëgg yàlla sama dama xol da cee sedd lool lool sax billaahi wallaahi ndax ku gis fa mu tolloon ba ñuy doog a tàmbali ak fi mu toll tey man ma xool ne sabab dërëm dimu ci te ñun ñii fi toog tamit ñu ci bari ñu ci mel na man sama seenub dërëm dimu ci loolu ñun ñii di sëti suñu àlaaram loo kenn ku ne war naa xam ne ni lii moom bis na ko tey kenn ku nekk doon da ngay miraas sa bopp sax war ngaa xool jumaa ji xam ne sab dërëm a ci te ñun loolu ñun ñëpp la war du tàmbulee ci sëriñ Bada mi nga xam ne wala sëriñ Mahamadan Lo mi nga xam ne moom ak ci sët yi ba ci ki nga xam ne moo ci mucc judd ñun ñëpp kenn ku nekk war nañoo def assemblée générale bu rëy toog waxtaan nan la jàpp ci jumaa ji ba jumaa jàgg ndax ay taalibe da koy def te ñun ay taalibe lañ te ñun ñi fi nekk ñëpp kenn ku ne ci ñun war ngaa gis xool gis ne jumaa jii kat fi mu doon daanaka raase na. te man de sama dëgg sama bopp laa koy tàmbali sama dërëm demagu ci sama dërëm demagu ci kon nañ fexe ba buñ fi jógee tey nañ fexe ba coordonné ñi nga xam ne ñoo ñoo ñoo sott ñoo ñoo bool ñoo bokk ci sët yi ak taalibe yi nga xam ne ñoo aju kër gi yëpp ñu fexe ba jàpp ci ndax am néegub yàlla rek la te yaakaar naa buñ ci jàppee tamit dana baax maa ngi jégalu ñëpp te wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ndax ki ko fi yebal la muy sëriñ Moustapha Lo Euh, dàkkantal bi rek firi na jëmm ji tur weet na dàkkantal bi kon loo yow it yàlla nga fi yàgg loolu te ànd ak wér euh, mu mel ne tamit message bi mu lancé jëmee ko ci bi yàlla bii nga xamante ni sëriñ bi mu ngi koy euh, taxawee message la boo xamante ni kenn ku nekk ci ñun tey boo tëddee. li nga war a njëkk a def mooy xalaat ci boo ci xalaatee rek di nga xam fi nga xamante ni foofu nga war a foofu nga war a féete ndax it nag du jàppale Serigne Bassirou Lo Al Arame ndax jàpp naa ne te gëm naa ne li koy tabax commencé ko ca fondement ba ba ca bis bañ koy daloo xam naa lépp jàpp ne na ci moom waaye nag pour soin bi fi mu waxee mooy pour ñun ñu suñu ñàq dem ci ngir ñu ñu amaale ci ngërëm li te it jumaa kenn ku ne xam na ne du néegub kenn ku du néegub suñu borom te kenn ku nekk ci ñun sam néeg boo ca duggee tabaarakalla ma néeg boo dugg ci ñi ci jotaay bii boo ko évalué woon gàtt gàtt mooy néeg ba ca gën a gàtt eh, da nga ca fekk 500000 kon nag néegub yàlla <coughs> ah war nañoo jar lu ne eh, jërëjëf daal yi Souhaïbou ci message bi nga xamante ni lancé nga ko fi ñi ñaan yàlla yàlla bu dugg ci noppam tax bu ko defee ñu daal di jox sëriñ Cheikh Lo moom sëriñ Bachir Lo kàddu gi sëriñ bi bisimilah. alim min sarri seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin sayidina mawlana muhammadin makin wa ala alihi wa sahbi mbokki jullit yi ñuy diglu mbokki taalib yi ak fu ngeen mënti nekk ñu ngi leen di nuyu ci di leen siyaar ci di leen ndokkeel di jiital ci nuyoo beeg siyaar cheikh Mouhamadul Mountakha Mouhamad Basir ñaan suñu borom yàggal ko lool te àndal dafa ko wér di ko ñaanal suñu jëwriñ ji suñ kanam di cheikh Mouhamadul Basir lu alal ñaan suñu borom gën ko tëbb kàttan te dolli ko gudd fan defal ko ak wér saxaatu daare ni ni am mbégte bu baax ci ci jotaay bi di rafetlu kàddu yi fi jot a jib yëpp daanaka suñuy kàddu sax mënoon naa ñàkk ndax. jëwriñ ñi fi jël kàddu mi Cheikh Mouhamadul Bassir mi Serigne loo ba ci Cheikh Soin mi suñu bàtt mi di bëgg jël kàddu daanaka suñu seeni kàddu rek yóbbaale nañ suñu kàddu ndax eh, daayira bi biñ ko sosoo ba léegi ñoom ñoo ne ca kanam donte ñooy seen i mag waaye ñoo ne ca kanam di doxal lépp ñu daanaka mën naa wax ne ba ma ca gëjee kenn xamul kañ la waaye lépp lu ca mat taxaw ma ca def ñoom def nañ ko kon nag ñoom ñoom ñoom lañ ameel cant ak ngërëm. di sant bu baax di ñaan suñu borom mi tax ñiy jëf ak seen maam ji sëriñ Aliou Arame yàlla leen fay lu kawe seen jot bis bi ñuy waajal nag mi bis boobu màgg di bis bu tedd di si jàmbaar bokkoon ci min abra si abtal yi nga xamante ne bi ñoo toppoon Seydina Seydina si Ahmad Bamba Xaadim Rasul muy sëriñ Aliou Arame Lo ñu di ko fàttali di ko di ko waajal ñaanal ci pàkk bu tedd bu sell bi nga xamante ni fii la nekkoon. ba xëy jóge fi suñu jàmbar ji gane fi àdduna mi Cheikh Mamadou Bassir mi pàkk bu màgg bu sell ci ñun xam ne amuñu tamit lu ko gën a kawe kon nag ñu ngi ñaan ci barkeb Xaadimu sol mi tax ñu woote bis boobu yàlla nañ ci defal tawféex defal ñu ci pajuk aajo saahira baatin bis boobu nag sañ bi da koy woote di ci fàttali waajuram ba di ko di woote it pour ñu jàngate ca maanaam ci jikko ya ak mbaax nga nekkoon ci sëriñ Aly Aram Lo xam ne dundam gi yëpp ay leçon la ak i xibra ni ko Alxuraan mu waxee ne wala xadd kaana lakum fii xisasihim xibratun li uli albaab kon kooku jëmu jooju buñ ko dee fàttaliku ñun ñi ñu wuyoo ne ay sëtam lañ kon war nañoo dox doxin wa nga xamante ne bii di ko xeeñtu fa mu tegoon tànkam ñu jéem fa donte mënuñu ko waaye ñu cay góorgóorlu suñ kamtalaay kàttan comme ni ko Cheikh Soñ bi waxee léer ci ci jumaa ji eh, ne sëriñ bi def ko mi man di sama morom ñu ci bëri mën naa wax ne seen dara demagu ji te loolu suñu gàcce la kon nag war naa doon ab soññe ci ñun ndax suñu borom kat dafa xam ne fal yu sax su sixati min sixatihi faman qudira alayhi rizquhu fal yu'ti ma ataahu la laa yukallifullaha nafsan illa wusaha képp koo xam ne yàlla jox na la xéewal nga man ko nga def ca sa kamti lay kattan nga yëg ku mën a finance lu lu ay tonni ciment wala lu mënt doon nga def ko ki nga xamante ne mi sa wërsëg àggul foofa nag la nga am man ca sa doole toll ca nga di ko def waaw te yàlla mu tegul kenn lu mënut kon nag ñu gën cee bàyyi xel bu baax a baax te xam ne nit kii moom amul lu dul boppam amul lu dul moom ci ñun lii fii mooy suñ lépp kon nag war nañ cee góor góor lu baax xëy na sax ñoo ngi ci waaye dañuy soññ rek ñu ngi sant suñ ñu ngi sant bu baax a baax di jéglu ci kàddu yi di ñaan bis bii ñu jëm ñaan suñu borom defar ñu ci tawféex sëriñ bi defal ñu ñu dëppoo cee ngërëma sëñ bi lépp luñ ci sàkk wala ñu ñu jëf ko ci yàlla na ko sëñ bi nangu ca làqal ñu ko fa yàq agut kon ñu ñu wàccee kàddu yi foofu di sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant yéen waa rajo bi di leen gërëm seen taxawaay yu rafet ak seen yitte ju mat ji ngeen xam ne jël ngeen ko jox ko bis bi kon nag ñu leen sant di leen gërëm ci turu sëriñ bi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Eh, kàddu yi am yi nga xamante ni yëkkati na ko fi eh, comme ni ko waxee rek. Eh, wa inda zikri salihina ba tey tanzilu rahma euh, kon muy woote boo xamante ni kon euh, euh, woote baa ngoog kon bu ko defee ba tey ñu daal di rek bala ñuy yox sëriñ Aliou ñu seedal sëriñ bi rek ne Touba Fall FM mi ngi nii de ko def en direct te daawit amaloon na lu mel nii ci Touba Fall FM invité woon njabootu sëriñ bi ñu ñëw waxtaan ci jaar-jaaru sëriñ bi bi ñëwee ba ci cérémonie officielle bi it euh, jàllale nañ ko en direct euh, ñu leen sant bu baax a baax a baax a euh, waa tubaa Argentine tamit TV ñoom it teew si nañ bu ko defee kon ñu jox sëriñ bi muy sëriñ Ali Badara mu joxe wax ci turu sët ak sëtaat sëriñ Aada Aram Lo yi waaye ñuy fàttali rek ne addiye ji sëriñ bi euh, ndongo yi am na luñ ko booleel mooy ka ci ne wàccee nañ ci benn kaamilu alxuraan euh, jàng nañ tamit lu toll ak 313 ci jaalibatul maraaxib ak 313 euh, ci toxfatul mutadarrihin ak 1062 ba tey ci toxfatul mutadarrihin ak 63 si ndiidi loolu daal nañu jàng boole ko addee ji di la ko di ko teg ci loxoy sëriñ Aliou Badara Lo allah mu jëm ko teg sa loxo sëriñ bi bisimilah. bismilamin asalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina muhammadin al wa ala wa sahbihi dawi ridwani wa tamkin wa radiallahu an xalilihi wa xabibihi alcheikh ahmadul qadim mbokki jullit yi di teewlu rajo Touba Fall FM 105 point 5 fu ñu mën a nekk ci àddina bi ñu ngi leen di nuyu ci turu sëriñ bi ak ci turu njaboot gi sëriñ bi doom yi donga yi sët yi taalibe yi ñëpp ñu ngi fii tey ci sa kanam di yeesal seenu njëbbal di yeesal seen pas-pas di yeesal itam seen taxawaay ci fas yéene incha allahu lu rate ci yow te muy ndigal ñu taxaw ca loolu rek mooy sunu ite guddi ak bëccëg e, ci turu mbokk yëpp nag góor ak jigéen mag ñi ak ndaw ñi e, ci nuyoo boobu it ñu potaxlu ci nuy ca dëkk boobu rajo bi nekk sunu waajur wu jigéen bi nga xam ne mook sëriñ Basiru mi ñoo bokk waajur wi sëriñ Ale Aram eh, te mu nekk ca dëkk ba di sunu bàjjen Sooda ak mbokkam ca njaareem di soxna Mbeen tey dafa mel ne ci kàttanu yàlla ñooñu la sama borom dogal ñu njabootu sëriñ Ale Aram gi nga xamante ni moo leen meññ ñu nekk ci kaw suuf kon ñooñu dana jaadu ñu nuyuwaale leen xamal leen ne seeni doom seen i sët seen i taalibe ñoo nekk fii tey fas yéene liggéeyal sëriñ bi ci ëttub sëriñ Bassirou Lo jam moom sëriñ Alaram fii ci Touba Diamaguène euh, ginnaaw loolu sëriñ bi euh, bala ñuy wax ci turu sët yi dañ ci bëgg a def benn parenthèse boo xam ne dañ koy yóbbante mbokk yi nga xam ne ñoo nekk ci àll bi ci diaspora bi te rajo bi ak lam ak télévision bi tey nekk ci àll bi ñu koy jariñoo dañu am fi taw féexu télévision bi ñu tuddee tuba Argentine mu teew fi mu mel ne comme njaboot gaa ngi ci àll bi ñu bëgg leen xamal ñoom ñiy dégg sëriñ Bassirou ak màggaluk Serigne Bassirou Lo ñu xamal leen Serigne Bassirou lu ko muy màggalal ak lu tax muy màggal euh, dafay mel ne bis boo dégg ñu tudd ko am na lu ko waral waaye am na it ku ko waral yaar yooyu dañuy daje ci béréb bis bii nag ki ko waral mooy sëriñ Ale Aram li ko waral mooy doomi sëriñ Ale Aram Lo ju ne ci kaw suuf xam ne yàlla sun borom li mën a jariñ ab jaam bu dundee ak bu faatoo moo di bokk na ca mu bàyyi doom jo xam ne mën na des ginnaawam di ko fàttaliku giirug dundam ba keroog mu koy fekkee te loolu sëriñ Basiru taxaw ci yàlla def ci geneen tawféex te mu dëkk bii di jàmm gën 1945 bi fi sëriñ Ale Aram ñëwee jóge fii ci rabbu na fi muy fii ci kaddu ballo ji ginnaaw bi mu jógee ca Njaambur dëkk bu ñuy wax Boya fekk mu jóge Ndaam Xalil jëm si fii di dëkkaale ak sëriñ Touba yàlla sama borom dogaloon ca Boya googee la gëmme ay bëtam ca la ko yàlla nattoo mu silmaxa 43 ba 1945 sëriñ Ale bëtam dafa muuru woon mu jege Njàmbur jëm si ci Cheikh Modou Moustapha fii ci Touba yàlla dogal mu wàcc ci rabbu na fi nu yónnee ci sëriñ bi sëriñ bi dal la ko ci mbokkam foofu sëriñ Moussa Gueye ak sëriñ Sayer Gueye ñoom ñu nekk foofu di mbokki sëriñ bi soxna ñanga muy maam ñanga mi jur sëriñ Basiiru foofu la liggéey liggéey bu rëy boo xam ne dafa mel ne la mu liggéey njàmbur ci diggante bii la gën a liggéey liggéey bu gën a rëy boobu ndax daana jóge foofu jëm si Touba yi di fi roote si am ndox di yóbbul sëriñ bi foofu di fi wuti si ab dund di yóbbal sëriñ bi foofu te ab àll ba nga xamante ne nii ay nag mant rek ñoo fi nekkoon jommi na fi guddi jommi ne fi bëccëg jommi na fi njomm ca la nga xamante ne nii li ko topp ba agsi ca dëkk ba bi mu ko waxee sëriñ bi daf ko ne ko maa ngi woon ci sa wet lépp lu àndoon yow xam naa ko te gis na ko kon loolu yàlla suñu borom dogal ci kattanu yàlla ci biir liggéey boobu la suñu borom xéewale la sëriñ ale soxna ñanga mu dogal dogalam bi sëriñ basiiru rot ci seen diggante muy ndénkaañul suñu boroom lu ñëw ci moom yàlla dogal nag sëriñ bi seex Modou Moustapha wax ko ne ko del jëfandikoo lu mel ne jar ak xorom polle te déglu loolu la doon jëfandikoo ba benn bis benn nit bu ñuy wax Yaxya Saako muy bu ah, ñooñu Saako ñoo ñu ngeen di dégg ñuy fajkati bët yi ñoo fa waxtaan ak sëriñ bi bi ñu juboo mu nangu ko faj mën ko faj sama borom dogal mu faj ko bët yeeg xippi waaye lam digge woon ak moom nekkul ci teewaay ba tey ndigal jot na pour mu jóg dem dafa ànd ak moom ne ko mu ñëw ñu ànd dem ci ay taalibe yu nekk fii ci boori Ñamre Gosaas buñ fa demee yàlla mën naa dogal mu am fa lu mu ko mën a faye ba mu yewi ko ci diggante bi la seen borom dogal xéwal yu bari rot fi ba mu fay ko la mu diggeeg moom ba mu yewi ko sëriñ bi du wëlbatiku moom ñëw fii ci Touba Thiawéne ci ndigalu Cheikh Modou Moustapha mu boole ko ak Thiawéne gii ñu bind ab lettre jox ko mu jox ko mag bi fi nekkoon di Cheikh Moussa mu dalal ko xottil ko fii ci ëtt bi boole ko Cheikh Ridial ñu bokk pinc mi di waa kër Cheikh Modou Moustapha jamono bu gàtt lu toll ci ñetti weer motu ko ci la sëriñ bi ñëw jamono ci la it Cheikh Modou Moustapha wàccub liggéey ginnaaw bu Cheikh Ali Aram liggéeyee liggéey bi mu njëkk a liggéey ci jàmmagan gi yóbbu ko muy haddee jum addiyal Cheikh Modou Moustapha bi mu dellu sa diir bu gàtt Cheikh Moustapha wàccub liggéey fekk sëriñ Bassirou di doog a am juróom-ñaar ci ay at ci kaw suuf kon mu teel a nekk ab jirim ñàkk waajur wu góor ki mu ñàkk nag nekkoon aalim wari shaqi tayib nit ku teey ku sell nekkoon kaang fóore nekkoon ko xam ne jariñ na àddina waaye jariñ na itam ñooñ àddina ñi nga xam ne dañuy jaxasoog ñoom te sax duñ leen gis te ñoom ñoo ñuy gis te ñoo nekk mbind fi yàlla yoo xamante ne nii ñoo leen di tuddee ay jinne ak ñu mel ne ñoom te ñu doon ay jullit tey taalibe Cheikhul Khadim mu amoon cay mbokk am ca soxna am ci doom te loolu lépp mu ngi ci kër gi tey suñu borom dogal lépp ngi ci loxol Cheikh Mouhamadou Bachir mii dëkk bii nag sëriñ bi ñibbi si fii di fi woote liggéey boobu njëkk ba muy ñibbi fii nag ma nga woon ca Daaru Xuddoos te at mu jot mu daan ko taxawal njëkk sunub juddu nun ba tey jii nun ñëpp ñu mën a toog man cee am di ci luñ ciy saytu ci ndigalam ak mbaaxam ak bëggam sunu njariñ loolu mooy sunu teewaay ci jataay bii sëriñ ale moomu nag yéen mbokk yi nga xam ne da ngeen a bokk ci sëriñ bi te bëgg xam mooy kan xam ngeen ne mooy ku yàlla baaxe ku yàlla dimbali ku yàlla jagaleel xam-xam mu nekk taalibi cheikhul xadim li ko yàlla njëkk a dimbalee nag mooy li ko may mu am sëñ Tuubaa xaadimu rasuul mooy ndigal li mu déggal ay mbokkam te ka ca di magam di sëriñ Mouhamadou Lo Dagana mi nga xam te bu jataay bi yaatoon dana leen xamale diggante sëriñ ale aram ak sëñ Modou lu ñu bokke ndax ñoo bokk subayru ñu bokk faalo ñoo bokk boo bokk goo xamee mën nañ ko tudd ba ci maxtaar ndax sëriñ xujj ko ma leen mel ne dem maxtaar ba ci maxtaarum ndaam kon mbokk la gu yaato yaato yaatu loolu mooy càllale gi leen lënkale waaye la ko gën a dëgërale muy sëñ Touba bi mu ñëwee nag 1903 fekk sëriñ bi nekk am kanfoor yi muy jàngale ci dëkk bi ñuy wax Daara Jaañ la ko fa fekk ak ndigal wax ko xew-xew bi xam ko ne xamal ko ne ko mi ngi jëm ci sëriñ bi ci gànnaar ci dëkk bi ñuy wax xumaag wax ko njariñ li mu bàyyi daara ja bàyyi njaboot gi dikk ànd ak moom ñëw fekk Serigne Touba ci gànnaar jébbal ko boppam Serigne tubaa téye ko fa nattal ko fa xam-xamam liggéey la ko fa ci kaamil alxuraan diirub ñetti at ñetti at yi wax nañu ne sëriñ bi lam fa dunde lépp la ca ëpp ban la ak ndox bu mu doon siim ngir mën ko dëgërloo nekk ci ndigalu sëriñ Touba yooyu ba sëriñ Touba yewwi ko mu ñibbisiwaat njàmbur ci ay mbokkam bi mu dikkee nag fekk dogalub suñu borom rot ginnaawam mooy mbokk yi mu bàyyi woon la mu doon defi neexu leen ndax bëgguñu woon xamuñu woon gëmuñu woon sëriñ Touba ba tax ñu tas ak njabootam ñaari soxna yi mu bàyyi woon ginnaaw fekku leen fa ak te ay taalibe fekk fa fekku fa lenn loo xam ne dafa mel ni ku fàttu miraas ko mu xam ne ci njortam daal lim doon wuti ci sëriñ bi amu ko kon dafa war a yeeslu jiwaat bëgg a dellu gànnaar ñu ne ko sëriñ baa ngi ci Sénégal mu laaj fu mu nekk ñu ne ko mi ngi ci dëkk bi ñuy wax Ceyeen mu dox wuti sëriñ Touba ak takkusaan la fa agsi nuyu sëriñ bi sëriñ bi ne ko kooku Aliou mu ne ko Mbakke mu ne ko luy say tànk mu ne ko Mbakke man de daal di koy nettali la xew lépp ne ko dama ragal ne nag damaa amul ngërëm may doon yeeslu si di àggali si ngërëm li sëriñ Touba xamal ko ne ko ah kay naka noonu la dafa fekk ne bu mu nekkee gànnaar di liggéey bis dafa ñëw xel mi nekk ci njaboot gi sëriñ bi bàyyee ko xel ma nangu jëf ja. ne ko dellul ca njaboot ga ndax xam gu sëñ Tuubaa xam ne xelum sëriñ Allé njaboot gu dugg na ca loolaa taxoon mu yewwi ko waaye ne kon du woon ko sax dogal dikkul woon yewwi ko du mën a am. loolu nag buñ ko toppee di ko xam le daal ci gàttal dafay gudd gudd nga xam ne timis jot na jataay bi xat na. waaye bu ñu amee beneen plateau bu mën a am occasion bu mel nii danañ ko jàngal waa diaspora boobu nga xam ne njaboot gaa ngi fi bëgg naa ñu xam ne sëriñ bi wootewul màggal ngir ne ñëpp dañoo màggal muy màggal sëriñ bi dafa woote màggal ngir ne ndi yàlla moo digle ñu ñaanal waajur fàttali ko waajur waaye dimbali mbokk yi te ku gis ni muy màggale moo di sant yàlla ci joxe ay ñam jàng alxuraan tudd yàlla yewwi nit ñi ñu delluwaat ba déwén loolu lay màggale loolu lay defe ginnaaw loolu nag sëriñ bi ni ko mbokk yëpp waxee dale ko ci sëriñ mi ak sëriñ Basiiru ak sëriñ Shuaybu ak sëriñ Cheikh njaboot gaa ngi ni sëriñ bi ci sa kanam ñi nga ànd ak sëriñ Moustapha moom sëriñ Cheikh jàmm gan soxna Lo tàng ne teew di doomi sëriñ Cheikh waaye nag teewal fi sëriñ Dan mi nga xam ne mooy su mag ñun ñëpp ci kër gi. ànd ak sëriñ Cheikh mi sa doom ànd ak njaboot gi yëpp sëñ bi sa waa kër ñëpp sa taalibe yëpp ñi nga xam ne daal taalibe Fatahul Wahhab Karim yi taalibe yi Masaalikul Jinaan yi taalibe yi Taysirul la yi benn taalibe lañu tur yi ñoo wuute ndax néeg yi ñoo bokkul fu ñuy fanaan waaye nga xam ne daal genn njaboot la gu lënkaloo fas yéene jëfe ndigal yi bàyyi tere yi loo ñu digal ña ca loo ñu tere bàyyi nañ ci ak fu ñu jëm yaa way sunu ndey yaa sunu baay yaway way sunu sëriñ ndax amuñu lu dul yow tey jii lu bari bari bari bari ci àddina fu ñu wëttee fii lañ war a fanaane si ndax yaa fii sëriñ ale aram te nit ki mënta am lu jul boppam mënta am lu gën boppam te nun sëriñ ale mooy nun nun ñooy sëriñ ale te yaa fii sëriñ ale aram kon sëriñ bi njaboot gaa ngi nii ñaanal nañ leen ñu am xéewal yii ni ko soo soay ba junje ni ko mbokk yi xalaate lépp luñ yéene sëriñ bi yàlla may na la sa digg moom ubbil na la it te nun xam nañ ne boo wetee ñaan suñ boroom dana ko def ñaanal leen gudd fan ñaanal leen wér ñaanal leen ñu mën a liggéeyal sëñ Tuubaa ci pas-pas bu ànd ak sa pas-pas te lépp loo joxoñ ñu am luñ ca mën a dagg buñ mënta dagg lépp itam te ñu ànd ak tal ànd ak fekke loo yaaram nga gën fay yàgg gën a wér ñu yàgg ci sa ginnaaw ànd ak yow barkib sëriñ Ali Aram barkib Cheikh Modou Moustapha barkib sëriñ Moustapha Mbacké Mouhamad wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mais dañuy jox kàdd kon sëriñ ba Bassirou rek euh, incha allah kon dañuy daal di jox rek kàddu gi sëriñ bi balaa waxtu wee gën a tàbbi incha allah. asalaamaaleykum yéen mbokk yi fi teew euh, mbokk yi nag duñu ne mbokki bi duñu mbokk yi di déedéet mbokki sama bopp sama bopp sama bopp fi teew muy samay doom. di samay set di samay setaat maa ngi leen nuyu te den sant di nuyu it taalibe yi fi teew yi yëpp waaye <clears throat> ab sëriñ ak ku ma doon dafa gën amul lu gën a ci moom doom eh, ndax doom ji moo waral li ñuy def fekkoon ne sëñ aale man ko defal moo woon def ba jóge fi rek bay fi doom loolu doom loolu nag mooy leson bi mu leen di jox nga xam ne damay ñaan yàlla kenn ku gën a tuuti ci yéen yéen ñëpp kenn ku ñu nekk yàlla may ko ba muy def lu toll nii ak lu waa lu ëpp di ko yow si sëriñ Allé yàlla mën na ko ndax kenn ku nekk foo taxaw yaa fi sëriñ kenn ku nekk rek foo taxaw yaa fi ndax man mi comme ni ko sëriñ Aliou loo waxe ba fi sëriñ Allé juróom-benn at la am dugg juróom-ñaar sëñ Cheikh moo jëkkoon di màggal fii di màggal sëñ Aliou ci atub gën bii jàmm gën dañ ko teg am na ñoo xam ne sax sëñ bu bees dañ ko teg waaye moom du nekkul sëñ bu bees ndax sëñ Aliou Aram fi la génnee àddina 1952 euh, man fii laa gane àddina 45 kon sëñaat dañ ko defaraat waaye sëñ bu bees sëñ Moussa Lo mais ak loolu ñoom ñee ñëpp fii lañ juddoo ak yàlla yi mag yëpp fii lañ kon dëkk bi dëkk la bu mag dëkk bu yàgg la dañ ko gën a laat te yaakaar naa dootu dee ndax dëkk bu ci jumaa taxawee moom dëkk boo noppee naa te jumaa ji taawoo nañ ko te naan ñaan naan yàlla mi nga xam ne mooy maye mu may nu mu bokk ci jumaa yi gën a rafet ci dëkk bi gën a taaw ci dëkk bi donc ñaan yàlla mi maye nag ndax yàlla loo bëgg da nga koy ñaan te di ci jéem euh, ndax jumaa ji loo xam kër kenn la képp ku fi nekk ci yéen maanaam toog ba yii jumaa ji di ko jiite ndax néegu yàlla te néegu yàlla ku nekk yàlla ca nga bokk ndax suñ Tuubaa bi muy wax ñaan ay jàkka ci Tuubaa waxul na may may ma ja may ma sama jàkk euh, moom ma rek ma yor ko muy wax waj ël bu yóoti kullaha masajida suñ borom defaral ko néegi Tuubaa yëpp mu di ay jakka yan naas yàlla man laa yàkkoon sajida rakab waay julli ci néegi tooyee mooy def ko yooyu jàkka jàkka yooyu nag mooy law boo yegg si suñu jàkk ji te dana dana jëm fan ko bëggee yeneen jàkk yi dana law <coughs> dana leen jeex kon nag mbooloo mi nga xam ne mbooloom suñu àll moom nañ gën a takku góorgóorlu te xanaa jàmm gën gi mooy suñu jàmm gën ndax li mu nekk suñu jàmm gën dëkk gannaaw euh, suñu àll fi laa cib liggéey ñu bari ci ñun fi lañ juddoo sëñ Cheikh moom taw sëñ Aly Aram Lo fi nekkoon def lépp di fi woote di béy di joxe jàddiye di dem carrière fu nekk jëmnoo ci liggéey sëñ Tuubaa yi jaarale ko ci sëñ Cheikh Mbacké waaye jàmm gën gii laan jógee di ko ak mboolem taalibeem yi ci réew mi yëpp ak taalibe yi nekk fii yëpp ànd ko ak moom kon nag loole bu ñu demee ba yegg si na si ah, jàmm gën ñu gën koo dëkkaat nañ fexe Pastef boobu ñu euh, sëñ Cheikh daa am nu am ko bu ko raw an àndandoo ko jëm ci sëñ bi te luñ jël ak yokku rek rek ndax lu mu mën a doon lu ma taalibe taalibe rek la mën doon rek la mën a doon mun noo fexe bay sëñ Tuubaa nun taalibe rek la mën doon taalibe gi rek nañ ba nekk taalibe yi mag pour doon taalibe yi ndaw ah taalibe yi nañ ba taalibe nekk taalibe yi mag waaye sax duñ mun na fexe fexe ba sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa moom ñooy sëñ Tuubaa ñu ngay sëñ nu ñuy taal bi noo ngi taal bi euh, tal bi nag euh, léeg mu sëñ ba ndax gëm-gëm yi la ndax sëñ bi daa gëm sëñ la nunu dina gëm na taal bi lan te sëñ Tuubaa li muy def lépp ci ko def kon nag yàlla bu nu ci kenn pare ndax bu fekkoon ak mbokk rek la Seex Ibra Faal tol ni mu toll boo tuddee sëñ Tuubaa doo ci teg kenn ku dul Seex Ibra kenn boo tuddee foo tuddee sëñ Tuubaa ci àddina Cheikh Yérim ba nga ciy teg sëñ Cheikh Yérim ba mbokkum sëñ Tuubaa ba bokk sore doon ci maam Cheikh Ibra nit ñi noo ko gën a jege sax ci bokk léegi nag lool bu amee loolu rek day na leçon ñi di ci xool di ci roy yàlla def nag ki far dëkkam bii ñu mu dëkkoon sëñ Moussa Fall dëkk fi sëñ Moussa Fall lu ah, ak sëñ Alaram loo nekkoon benn Euh, ci nettali yi ñu bëree bëri bëri yoo xam day gudd waaye benn lañu woon ba soxna Xadi Lo mi fii sëñ rek rek sëñ Cheikh mm, nekk nekkoon ak Balla Congaan di xeetu sëñ Moussa Fall ban loolu rek doy na ci firnde ba léegi ba léegi ñëw kon nag man mii sëñ Cheikh Fall bay góor lu nekk ci àddina defal na ma ko lu nekk def naa ko moom kon nag yal na yàlla dëral taal bi gi waaye ci dekkal taal bi gi rek la pour wane ne ay taal bi daal mooy jarro yi ñu sant Mbàkke moom ak ñu sant Busa nañ sant seen Mbàkke fële ak seen Busa fële bu amee addiye jox leen nun noo ngi taal bi yàlla na taal def na gën a mag wooma la nu musal nu ñu nekk benn nekk ay taal bi ci gannaaw Sëñ Tuubaa asalaamaaleykum wa rahmatullah jërë ngeen jëf mbokk yi seetaan Touba Argentine TV euh, ñi ngi leen di sant bu baax di leen gërëm lii mooy ziar bi nga xam ne ziar général bi nga xam ne doon lañ leen ko jëlalee fii ci euh, Touba gën ci kër Serigne Bassirou Lo Ale Aram ci bis bu am solo boo xam ne niki incha allah samedi ji ñu jëm la fas yéene am fii ci Touba Diamaguène ñetti daaira tey lëkkaloo woon ñëw teew ci kanamu sëriñ bi doon ko jébbal li nga xam ne moo di seen ab ziar bokk na ci daaira tey siirul asir euh, petit bu boo xam ne mooy petit de Serigne Bachirou Lo Aram muy sëti Serigne euh, ba Serigne euh, sëti Serigne Ale Aram looyi muy daaira tey siirul asir ak daaira bu ñuy wax Fathul Fathul Wahab Fathul Wahabul Karim di daaira bi nga xam ne moo lëkkale taalibe yi ñoom tamit euh, ñëwoon nañu ak daaira bi nga xam ne mooy Masalikul Jinaan di daaira euh, Serigne Cheikh Lo jàmm gën mbokk yi ñetti daayira yu am solo yi ñoo lëkkaloo woon ñëw fii nga xam ne moom moo di ci Touba jàmm gën ci kanamu ku tedd ki nga xam ne moo di Serigne Bassirou Lo ale aram euh, Touba Argentine TV doon leen ko jëlal ci présentation bi ci kàddu gi te ngeen jàkkaarloog man seen mbokk Arona Cissé la Cheikh Samb moo nu féeteel ci wàllum caméra bi di gërëm bu baax euh, suñu monteur Abdou Ndiaye di jaajëfal Gora Seck diwaan bu Argentine di sant bu baax a baax mboole mbokk yi nga xam ne yëpp teew nañu fii kon nag di leen jox dig daje incha allah samedi wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.